Ndiaye lu jëm ci mandaawam nag ci mairie bu Ndakaaru ak député ca assemblée nationale mu ngi ci loxoy njiitu réew mi président Macky sàll jëwriñ ji ñu dénk wàllu justice Aïssata Tall Sall mi fi nekkoon nag avocatam cour suprême dàq na Barthélémy Diaz loolee nag Vox Populi moo xëy daal di koy fësal ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi ne cour suprême nag ma ngay dëggal atte bi ñu atte woon tëj ko ñaari atu kaso juróom benn weer mu war a fay ñaar fukki million ak juróom njabootug Njaga Juuf ay avocatam ci biir yëglekaay bi di xam ne ni nag yoon kenn doxalu ko ci li ñu mel waaye nag duñu bàyyi yi daañu xool yeneeni yoon amal lu ci mel ne ab rabat d'arrêt ñaari mandat yu nar a nax saay loolee la yëglekaay bi di enquête xëy bind ci xëtam bu njëkk cour suprême nag dàq na démb pourvoi en cassation naka la Barthélémy Dias nar a def nag ngir sauver fauteuilam bi yëglekaay bi moo xëy samp boobee laaj na jamono ji nag moom day ji réew bu ndakaaru nag ñàkk na mandat député ma Iba Bari Camara di xamle ci yëglekaay bi di Les Échos ne Barthélémy Dias nag mën naa ñàkk mandat député waaye lu jëm nag ci mandat mairie bi mën naa woy di ko doxal ndax nag daan bi ñu ko war a daan ci mbirum njaga Diouf ba tax mu war a ñàkk nag mairie bu Ndakaaru amut dara lu ci leeragum Cour suprême nag neenal na pourvoi bi nga xam ne rek Barthélémy Diaz dugaloon na ko laas yëglekaay moo ci xëy dellu siwaat ni jamono ji nag mi ngi ci guddi gu bët setagul ndax boo moytuwulee nag dina ñàkk ñaar ci ay mandaawam moo waral bés bi yëglekaay xëy dippee ko coup mortel la ci Barthélémy Diaz ginnaaw bi nga xam ne rek waa Cour suprême daat nañ koy rejeté yéenekaay bi ne carrière am moom Barthélémy jamono ji nag mi ngi ci guuta lu jëmit ci parrainage parlementaire bu Khalifa Babacar Sall nekk enjeu Walf Quotidien na Khalifa Ababacar Sall kay jamono ji nag daraam leeragul ndax boo moytuwulee dina am ay jafe-jafe ginnaaw rejet bi ñu amal nag ci wàllum pourvoi bi nga xam ne Barthélémy Diaz déposé woon na ko mu fekk nag la Soleil daal di def ab taxaw seetlu ci ni ñuy jëfandikoo nag pétrole ak li nga xam ne moo di projet Sangomar bi yër leen yëglekaay bi Le Quotidien nag daal di xëy def ab taxaw seetlu ci tukki bu jaarul yoon bi ñuy amal jëmale ko ca île bu Canaries yéenekaay bi dippeekoo ne été bu bëri ay bakkan yu ci juróom-ñaari junni ci ay doomu aadama rek ñàkk nañu seen bakkan ginnaaw bi ñu yéegee ci gaal yi ngir wutali Espagne l'observateur jamono joojee nag dellu siwaat ci coowal Ndella Madior Diouf enquête baag la ci tukkee yéene kaay bi ne nag mbir yee ma ngay gën a doy ndax nag juróom-ñaari nunu ak ñaari assistant jamono ji nag placé nañu leen ci garde à vue pouponnière boobee nag ñu daal di koy tëj jamono ji nag ubbi nañu ab l'enquête ngir xam ana ñan ñoo jur yooyee tuut tànk waaye rapport bi nga xam ne médecin yi fësal nañu ko ci lu jëm nag ci bébé yi nga xam ne nag jot nañu faa ñàkk seen bakkan rawatina jamono ji nag tolluwaayub nag bébé yi nga xam ne ñu ngi ci kër docteur kilifa yi nag la ñuy xaar ñu daal di jël seen matukaay ci musiba moomee nga xam ne rek moo xewee ca kër yërmande libération nag di ko feelu ak seeday doy waar yu tukkee nag ci personnel bi nga xam ne rek ñoo doon liggéey ak Ndella Madior Diouf ci biir yëglekaay bi ña ngi fay xam ne nag li waral xale yi ñàkk seen bakkan ba noppi nag teg ci ne am na ñoo xam ne nag dañuy foofee nag di fa amal ay accouchement clandestin ngir mën faa bàyyi seeni doom am ñu ne nag Ndella Madior Diouf xaalis bu weex tàll la doon jëlee ci kilifa yi nga xam moom la tuddee xale yi ñu àddu ci wàllu tàggat yaram ak réew mi sport nag dellu siwaat ci ligue 1 bi nag ci jongante bi war a dox ci diggante Tëngéej FC ak waa Jaraaf yéenekaay bi dippee ko le choc au sommet record yëglekaay dellu siwaat nag ci Tëngéej FC ak Jaraaf yéenekaay bi ne ab der bi dëggantaan la ci suñu làmb la ñuy àddu jëmale ci jongante bi war a dox ci diggante rëg-rëg ak bombardier ci bi combat dina gaaw te dina métti loolee gën a fas yëglekaay yi mbokk yi jàmm ak jàmm Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen de presse